أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله إنا بني سند يا الله جل رسول الله إيه، كوكو دينا نجي سوار واخ باسكو ريومي ريو جوليت لا آه، بو يالا ديفاي ньо ام كو ملني مام سيدي حاج مالك رضي الله تعالى عنه ام مام شيخ مام شيخ احمد بامبا بو كنت نجاسا نك ماك جوباخ ньоب ньоب ني ديفار sunu réew muy réewu jullit kon bu ñu demee ba borom ñaari tur yi di réew mi li seen gannaaw moo am doole mais ku mel na Gana Gueye li mu def moom lu dul fulla ak fayda ma koy conseiller moom mu mu gën a am pas-pas gën a boppam te xam ne jullit xàqan la euh, li mu am yàlla moo ko jox tabaaraka la macha allah catu ma moom la mu football ak li mu denc mën na ci dund ba ay njabootam dund ci kon defe naa ni bis buñ lay yeew sa tànk yi di lay yóbbu bis boobu yow xamoo kañ la xamoo fan la xamoo nan la kullu nafsin zaa'iqatul mawt kulli man alayhi faa lu mës a tooy day mës a wow adduna du kër waaw adduna du kër ñun dañuy toog ba ci yàgg si ñu ne ñu diw dee na rek nga tiit eh, lu ko dal waaw kon nag yow kooku ñeme yóbbu ragal yobbu kon mom bu demee ba gem yalla xamni li yalla bu ko yonenti bu ko kon nak dañ koy gën doorel ñun senegal gën ko jappale yalla ko yalla defal ndam ci barku yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bi may sanni fofu moy gani ni julit la te it am mbokk julitam jullitam football ci ñom même burul dara ñom nañu génnee sen pass pass naqarlu ko dolel ko waxuñu ñoom ñu gedd seen club wala ñu def naka sudul noonu mais nañu génn dooleel ko ba ñoom buñ ko doolelee ña nekk ca réew ma dañuy xam ne lislaam am na doole dañuy xam ne lislaam am na kattan waaw kon nag jullit yi nga xam ne ñooy fubal ak ñi nga xam ne ñoo ngànk fubal bi voilà nañu wane seen bopp jar na sax ñu wut benn brassard boo xamante ni dañ ci bind euh, euh, drapeau l'islam ñu takk ko wane ni tey lislaam am na lu ko naqare bu ñu demee ba tey borom ñaari tur ñu bëgg leen dooleel ci kaw jullit yi waaw. Hmm. man de salaamaaleykum euh, sama xalaat mooy Idriss Gana Gueye li mu def moom ma def parce que loo bëggul wala ko def ndax doomu jullit la te sunum réew dañu taxawal ànd sàmm jikko yi hmm. déjà bu dul woon loolu sax moom fi mu bokk doomu lébu la fi mu bokk. am na lu muy bañ loo xamante ne moom ñu ko waxee bu mu nee sol bu ko sol bu ko nangu woon sax am na lu ko ci ki fekk sàkkantumaan nag lii ndax dañ ko tere suñu réew mi dañ ci tere loolu kon boog bu dee ba réew tubaab bu ñu ko bëggee buub dugal ko ci loolu di am na plein droit man laal dama ko nawloo ndax xale bu am yar la ku am teggit la ku yarul la koo xamante ne ci ay kiyam la nekk ci ay euh, euh, PS tubaab la nekk. waaw ko nu ko lu ñu bëgg bëggul lu sol yére góor jigéen parce que boo ko solee yaa ngi ko yi ko nekk yére yam moo tax du ko sol doom ju baax boo ko yoree fi nga ko war a yoree nàmbatal ko tatagal ko ci fi ko war a yoree ci bu nekk doomu jullit fu mu mën a dem bu lee ba kuli kono yëfu doomu jullit rek lay doon ndax ci éducation base bi mooy mooy mooy feeñ mooy lépp waaw yaayam ak papaam lañ ko yore fi nga ko war a yoree digtal ko li ko boo amee boo am ay milliards te lu weddi yàlla bu taxul nga am ay milliards teg fa milliards yàlla waaw loolu la ñuy wax doomu jur dafa war a ne mu def bu baax di yaax sama doo suñu doom yi nekk ñu nekk foofu tamit bu leen alal fëkk ndax àddina bi fii la yem àddina bi loo gis day jeex bu la alal def loolu lenn li ndax alal ji dana juróom-ñaari mètre pet kaar rek nga ci am bu ñu def loo xamante bu demee dajeeg suñu bi man daal foofu laa loolu laa wax a ah, damaa ànd ak moom ci lii ñu ngi koy encouragé nag di xam ne fu mu yem neex waaw fu mu yem rek waa di leen wax ne affaire Gana Gueye bi moom wax dëgg fa neex yàlla képp kuy sénégalais rek kontaan na ci lu mu def parce que nit dangay am éducation de base am yar nekk doomu jullit ba pare xam ne yow doomu jullit nga parce que bu ko neexoon mu ne xaalis sañ koy fay mu jël xaalis boobu lekk ko boobaa moom la concerné moom la intéressé mais Gana Gueye dafa xool li nga xam ne dafa seetal euh, li nga xam ne diineem bëggu ko ba pare setal de deru Sénégal wax dëgg fa neex yàlla ñun Sénégal yi ñëpp ñu ngi ci moom nous ñu ngi ci moom ba tey ba suba ñu ngi ànd ak moom daal Gana Gueye ci lu mu nekk nii ci lu baax la te yàlla bu ci wàcce ndax moom doomu jullit la tax wane na doomu jullit la na xaalis day jeex lépp day jeex mais sa diine mënoo ko jëndee leneen mënoo ko jëndee leneen te Sénégal dañoo baaxoo am ay sëriñ yu baax comme sëriñ Touba Alaaji Malick maam Limaamu Laay Cheikh al Islam kon dëkk bi day metti rek mais lu bon du fi mus a am safaan du fi mus a am te Gana Gueye li mu nekk nii moo lay wane ne Sénégal yëpp ñu ci ginnaawam duñ ko bàyyi ndax Macron bu mënee taxaw ak waa dëkkam ne ñoom dañoo ànd ne Gana li mu def noonu du yoon ba jàppale ko si ñun tamit war nañu ñun senegal ba ma ak Macky Sall li mu ci jàppee taxaw wax si ci internet bi ci li ma gis kon ñun am nañu droit ñun sénégalais yëpp nekk ci ginnaaw gànna Gueye te Gana Gueye doomu Sénégal la doomu dakaar la doomu Médina la doomu Derkele la doful sax doomu julli la doful bay def yenn yi te alal jaralu ko ko ndax bu nekkee alal am na ko. Euh, man jeune bi li ma leen di conseillé daal mooy bu la alal jaral yenn yi ndax nit ki mënoo jaay sa diine wala nga jaay sa peuple wala nga euh, cuub sa drapeau wala nga jaay sa ngor na xaalis jaru ko góor jigéen yooyu yor seen marque bëgg nit ñi solal leen ko nañu dem ñoom si dëkk nasaraan yi yoo xam ne amuñu diine ñu dem ñoo ñu solal leen ko mais fii Sénégal dafa am lu ñu baaxoo suñu diine bëggul góor jigéen kon duñ ko fi nangu fii fii ba l'an 2000 sax laa wax ak ñeneen ñiy juddu nañu bàyyi xel ci loolu ne góor jigéen amul sens amul sens amul dara te rew mi réewu julit la réewu l'islam la ah kay ta dara du ko yàq. kay lu mu def nii waaw dañ koy rafetlu rek ndax am nit ki nek am nga droit défendre yow say couleur say couleur sa couleur l'islam sa sa drapeau l'islam to lolé dañ lolé dafa loolu dafa neex si xol billahi nda yalla mo ne inna dinna inna lillahi l'islam ba dinna lañ gëna a reconnaître moy l'islam ta geste bi mu def nii maam li la wax geste noblesse te li ñepp fa lañ ko doon xaaree xam fa waxe ni ak tamit soutenir mi nga xamante ne président bi tamit soutenir ko lol tamit dafa gëna dafa gëna dafa gëna kawé tamit kon dafa gëna tamit dalal xel maam ñu xamné ne ñun kon affaire yo ñuy xawa doon ñaaw njor ci affaire LGBT ñun lol do def kon du fi am kon Macky Sall tamit gis nañ taxaway taxawaayam rafet na tamit ma sha allah lol lol gan gëram diko encourager diko wax na ko fu mu tek tangam fofu la. pour bëgg a xaalis wala dara man nako def lol lol parce que mom mi ngi juddu ci ari julit yaru ci julit ñu yar ko ci alors su bañé ni duma def li war nañ ko bayyi parce que nit ku nek am nga say principe lutam mom muy sol tëni goor jigen du goor jigen xétam bu ko diineem bu ko askanam bu ko ko motax aduna bi yépp ñi ngi de tout cœur avec lui nañ ko traiter de xénophobe lu leen neex nañ ko wax mais ñun sénégalais yi moom ña soutenir à 250% waaw droit am la droit am le plus absolu tubaab yi ñu nek France ban jullit yi di voilé wu di ñew ci sen école yi ñu leen di dakh moom mu bañ ni du fay sol te ni ñu bëgg tukkal adduna bi dara jaru ko fi nañ ko bàyyi ci li mu nekkee adduna bi yëpp ñu ngi ànd ak moom ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam ci xeex bii muy xeex ni parce ko war ndax gànn ci ma la xew même bu tooñoon sax duñ koy soutenir waxuma moo ñu ko tere suñu ñu ko tere suñu lépp moo ñu tere góor jigéen sallallahu alayhi wa sallam ñun duñu moom ci dara loolu moo tax